Euh, nit Touba affluence bi nit ñi niñ fa bëree gis nañu taxawaayu euh, sëñ Mountakha di ñaan yàlla na yàlla yàggal taxawaayam mais màggal gi yow ban jàngat nga ci am waa màggal gi jàngat bi ma ci am Vito bari na bari na jàngat bi ma si am am na positif am na négatif waaw kontaan naa am naa naqar parce que sëñ Touba daf ñoo jabote ñun ñëpp ñun ay sëtam lañu dafa dafa di dañoo war a màggal sëñ Touba ndax dafa demoon ne bu ngeen bu ma ñibbisee ngeen santale ma sama borom. Mhm. n'est-ce pas. Mhm. ñu war ko santale suñu borom. Mhm. jàng ay alxuraan. wàccee ay kaamil. santale ko suñu borom comme ni mu ko diglee. mais nag dafa am lu rax ci màggal gi. te vraiment ma koy mettitlu parce que këru diine yëpp benn lañu. ndax suñu demee màggal am. am jigéen ñoo xam ni. Mhm. tey lañu war a war a topp waa kër sëñ Touba ay mhm. njabootam. Mhm. ñuy topp ay jigéen ay góor yoo xam ne nekk boroom kër. nekk kilifa ci sa kër. ngay raamal jigéen. di ko sukkal kooku lu ma naqar la lu ma metti la parce que sëñ Touba tey bu ñëwaatoon jamono. dana am mbetteel. sëñ Touba bu ñëwaatoon jamono. dana am mbetteel parce que suñu demee ba jigéen mel na la neex. nga xeesal ba weex tàll mhm. ay góor di la sukkal mhm. di la raamal di la tarbiwu te dama bëggoon lépp lekk ci biir biir Touba mhm. lépp ñu defee ko biir Touba képp ku jóg na nga jóg ngir sañ Touba mais paa nga jóg ngir doomu aadama pas nga jóg ngir kenn ngir jëmmi sañ Touba moo doon tax a jóg même ba ci ay doomam sax sooy jóg jóg sa kër pour màggali na la jëmm sañ Touba tax a jóge sa kër nga dem màggali màggal ko wàcceel ko kaamil santale ko suñu borom comme ni mu ko bëggee mais niñ ko defee nii mhm. ñaawlu naa ko méttilu naa ko en mhm. tant que jullit nag mhm. ndax dama di doomu aadama te man bugguma gis lu ñaaw mais ñaawlu naa jamono jii te nañ dem ba ci kanam ndax dama fi dawaloon benn audio audio bi léegi mat na juróom benni weer wala juróom ñaari weer dama ne woon nañu moytu mbirum Sonko ak Adji Sarr day dem ba laal kilifa diine yi audio yi bu ngeen delloo juróom benn weer si ginnaaw sama wax ji ñëwaat na dañoo dem ba kër kilifa diine yi wekatuñ leen mhm. joxatuñ leen gëdd bi ñu war a am mhm. parce que xëy na mun na am tamit ah xaw nañ ci laale mhm. parce que gis nga yàlla dafa bëgg dëkk waxuma njabootu sëñ Tuubaa gépp nag mais am na ci ñenn ci njabootam nañu topp ci ñi nga xam ne dañuy def te yàlla tax wax te yàlla tax mhm. li ñu gis ci réew mi ñu di ko wax te yàlla tax ñu topp mhm. ci ginnaaw ñooñu mhm. parce nga àddina la fi yàlla indee war di doxal loo xam ni mooy bëgg-bëgg suñu borom mais pas bëggu bopp wala sa poosu bopp am na ci nag ñenn ñoo xam ne loolu moom moom la ñuy doxal tarafet luuma ko waaw noonu la demee loolu sax sëñ Mountakha dafa jëloon euh, devant li ñuy wax ne jiitu woon na paaka ci mbaram ndax euh, joxoon na ndigal Baye fali yi ne ñu àndandoo ak waa police mm-hmm. lépp lu diine di tere mm-hmm. euh, ñu génnee ko ci biir dëkk boobu mm-hmm. mais gisoon nañu xale yi ñu doon wat ba fu mu toll nii ñu bëri ci xale yi jóge fii nii posé wuñu xef euh, teguñu yooyu yóbbuñu gërëfaal mais dañoo gis ne ay vidéo yu fuité yoo xamante ne doomu sëriñ si ñoo nekk seen i biiri kër euh, jigéen ña xeesal teg seen i greffage ba ñu bëri euh, di naxarlu lool naan xanaa ndogal bi moom ci ñenn ñi rek la la la sama wax ëmb euh, na lépp mhm. sama la sama wax wodd na lépp mhm. ndax su ma la nee sëñ Tuubaa bu dellu si waatoon jamono dana bari ñu mu mere mhm. sëñ Touba mu tedd mi. Mhm. keroog ba ma njëkkee toog jàkkaarloo caméra jooy. Mhm. xam nga lu ma jooyloo. Mhm. dafa am benn euh, artiste xale bu jigéen bu ndaw. yéeg ca kaw di sinap. waaw bés boobu damaa jooy. vidéo boobu ma tourné. sëñ Touba mérito wul loolu. di sinap ci kaw. ci kaw soroor ba Marichou la woon. waaw du tudd turu kenn. vidéo li des sama dund gi. du ma tudd turu kenn ci kaw caméra. mais dinaa junj nag. mais internet du ma lire nag lu nekk waay mais du ma lire am na ñoo xam ni daañu xam ki may waxal. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. gis nga keroog ba ma euh, tourné vidéo boobu maak Assane ñoo ko tourné damaa jooy ndax li tax ma jooy dama xam ni sëñ Touba fayuñu ko. Mhm. sëñ Touba li mu liggéey suñu borom. ñun jaam ñi fayuñu ko. dañoo war a dem màggal ko sant ko. santale ko suñu borom comme ni mu ko diglee. pourtant màggal gi yoor la yor yor la. di nga fa toog ñetti fan. Mhm. ñeenti fan juróomi fan. Mhm. ña fa dem pour bon yàlla gis na leen. Mhm. te képp ku dem ci barabu sëñ Tuubaa boobu ngir dugg lu bon. billaahi wallaahi taalaa balaa ngaa dee di nga ko gis. balaa ngaa dugg bàmmeel di nga ko gis. sëñ Tuubaa méritoogul li ñu ko fayee. mais am na lu bon waaye am na ñoo xamante ne tamit tuddee nañ leen li intérêt parce que léegi gis nañu ay influenceurs yu bëri. Euh, mooy ñi nga xamante ne dañoo siiw ci snap bi tiktok bi bu màggal jotee. ñu dem ci kër borom daraja yi. njiitu diw wala DG diw di snap ne moo jënd nangami nag moo jënd nangami kër bàyyi ñi nga xamante ne peut-être amuñu doole yàlla mayu leen. ñu bëgg mel ni màggal gi léegi boo amee daraja. ñu wone la boo amul daraja kenn du la wane. xam nga Vito. du daraja sax boo amee alal. alal waaw mhm. gis nga xaalis. Mhm. dafa garaaw Vito. gis nga xaalis. Mhm. ñun léegi dañuy jaamu xaalis. jaamootuñu suñu borom. parce que gis nga euh, màggal gi. Mhm. dama ci am lu bari lu ma metti dafa mhm. rawatina nag dafa am benn waaju wax benn wax. Mhm. boo xam ni moo ma gën a touché ndax ki démb dafa am benn waaju ma woo ndar doomam demoon ci gaal yi. bi doomam demee ci gaal yi waaju toog na lu ma juróom benni at. déggul doom ci. mu woo ma ne ma yaay Adama Sakho ma ne ko naam mu ne ma damaa bëggoon nga xoola ma sama doom ma ne ko ah mbaa jàmm mu ne ma expliqué ma ne ko danaa la ko xoola mhm. mais bi ko xoolee bi dafa nekk si lëndëm hmm. ma ne ko sëñ bi mu ne ma naam ma ne ko sa doom de dafa nekk si lëndëm mais góoma hmm. dinaa la defal saxaar kado may la ko hmm. parce que seet la muy génnee li saxaar du ko génnee danaa la ko defal bisabillaay mi ngi may dégg man dara jarul ma may fen dégg nga mais su nit taxawee ngay borom barke. Mhm. xaalis du ma ne du ma ne borom barke. sax dama mhm. naan nga am xaalis. Mhm. xaalis jay la lool. te day jay doomu aadama. Vito nga mën a taxaw ne ku dugg ci géej gi danga ngaa xaru. Vito. ku dugg ci géej gi da ngaa xaru ñun de suñu doom yi demuñu ci géej gi. pourtant Vito da nga yeewoog sa yaay. nga war ko jox lu mu ndékki. dañoo yarul seen doom yi moo tax. waaw da ngeen a yarul dégg naa wax ci yëpp. gis nga wax ci yëpp sax dama daf ma naqari ba mënuma sax sori ci wax ci. ma bëgg ko xamal ne gis nga xale yu góor dañu xale góor yi dañu sonn. Mhm. dañu am seen ndey am seen baay am ñu wekku ci ñoom yaakaar ci ñoom. Mhm. suñu duggee gaal pexe moo tax dugguñu gaal. Mhm. tey yow moomu di wax sa jabar or yooyu mu takk. tey ubboon na société boo xam ne xale yi daañu ci xëy di wàcc. sa jabar takk or yooyu mu takk am na fu mu xajoon foo xam ne mën nga ci dimbali doomu aadama. moo tax gis nga sëñ Touba. dina bari ñu mu layol ëllëg. parce que waxu leen woon lii. indi ay or takk leen ay or ba nga xam ne gestu sax yow doo ko mën. Vito man. Mm-hmm. damaa am sa sol yëre bu seer. Mm-hmm. barki salaatul faatiha billaahi wallaahi tallaahi sama waakar kër ñu ngi may dégg. Vito duma ma dem ngénte. Mm-hmm. du ma dem xew. du ma dem tuur xam nga lu may dem. loo xam ni mënta ñàkk. ala kulli al da nga dem. Vito. sama yére bi ma sol matul junneeg ñaar téeméer. wala junneeg ñeenti téeméer. Vito pourtant am naa yére yu cher. mais am naa sa sol ko doomu aadama di gis li ma sol di ko bëgg te amu ko. na ñuy soor seen ëllëg ak seen traayu bàmmeel mhm. ba ngay gane si jamono ba ngay ñëw dara topp la mhm. sooy ñibbi jamono sooy ñibbi génn àddina dara du la topp fi nga mhm. jëm ay nit a lay gunge sooy ñëw ay nit a lay teeru kon rafetal leen seen toogaay te ngeen xam ni alal ji ngeen yor ngeen war ci jaamu suñu borom war ci génnee asaka kenn du ci génnee asaka te xam nga Vito asaka day guddal alal fan asaka day sàmm sa alal. Mm-hmm. xam nga fan la ñu arab yi rawee. Mm. génnee asaka. asaka tànk yaa ngi koy génnee sa alal. Mm-hmm. sa alal day gën di yokku suñu borom di gën sàmm sa alal. Mm-hmm. sa bitig du tàkk. sa alal du naax saay doo torox sa dund. macha allah gis nga arab. da ngeen dundut ak arab wala ngeen dund ak naar. mais su ngeen dundoon man mi nga xam ne lu mu dee dee am naa fanweeri at Mauritanie. damaa xam li ci asaka damaa xam li ci warmaal doomu aadama. Mhm. Sénégal da ngay gis ku denc ay milliards. Mhm. néegu ci génnee jarbaatam mu tukki. Mhm. néegu ci génnee sëtam mu tukki. te pourtant milliards yooyu da ngay dee bàyyi ko fii. wallaahi sa njaboot ñoo koy lekk. sa jabar dem xool xale bu ndaw mu jàll ci ginnaaw sa jabar. wallaahi di noos. ak xaalis boobu ak sa jabar mhm. fekk yaa ngi bàyyi loon sa jabar xaalis bu bari mhm. ak ay or di mhm. bàkku di fëgg dënn di xas ay doom doomi jàmbur ndax ñu am na ñoo xam ne bu doon seen sago du ñu dugg gaal dañuy jaar ci voie normal bi ñii ngi jaar ci suuf si ñii ngi jaar ci ndox mi ñii dee ci désert bi nga xool borom kër bu fitoo bu toog juróom benn wi at ba dugg juróom ñaari at Vito xamoo sa doom fu mu nekk. xamoo mi ngi dund. xamoo mi ngi dee. Vito xanaa xamoo ñu ne ci camp dañ may woo. Euh, ñi ñu jàpp ci Espagne ci ci ci mhm. frontière bi war a dugg Espagne. Mhm. dañ may woo barki salaatul fatiha. Vito damaa am lu ma metti sama dëkk. Mhm. damaa am lu ma metti Sénégal Sénégal dañoo mbubboo jullit. te mbub mi dañ koo sol. suñu paree dañ koy simi sànni ko fee. waane yàlla gis na lépp. képp ku def te yàlla tax. ngay dimbali doomu aadama te yàlla tax. yàlla dina la dimbali. xool ko ci président Gabon bi. Ali xoolal ci Ali Bongo. Mhm. lan la ñu fekk si biir këram. 40 milliards 4 milliards. 188 millions. Mhm. la fekk ci biir këram. 4 milliards 180 millions. 88 mhm. millions. la ñu fekk si biir këram. alal jooju fan la ko jëmee. Hmm. kenn xamul xam nga milliards nan ñaata at la mën a dundal ci doomu aadama. Hmm. dégg naa lu bari waay. juddu nga. Hmm. ba takk jabar. Hmm. ba yor njaboot. Hmm. milliard boobu di la dund chaque jour nga génne ci fukki junni. wala juróomi junni. nga yor ko sa waa dëkk. est-ce que xam nga Gabon. am na ñoo xam ne dañuy lekk sax. wallaahi. am na ñoo xam ne dañuy lekk golo. ndax xiif am ñoo xam ne xobu garab la ñuy baxal boole kook koog ñànkatang lekk ko. man du ma seetaan télé Sénégal. man documentaire rek laay seetaan. man du ma jàpp benn télé senegal di ko seetaan. parce que duñ la delloo ci suñu borom. Vito. Hmm. Ali fu mu mujj. Hmm. mu nga ne ñu ngi naan Maroc la Maroc la nar a waxuma sax waxu Maroc. Hmm. ci wàllu wér gu yaramam. AVC bu rëy sax tamit. Ah. xoolaat leen seen dëkk yi ndax xam nga lu tax ma rus. keroog bu ñu ubbee këram gis xaalis bi. damaa am gàcce. laaj na ban gàcce laa am ban tubaab yi bu ñu gisee. di xool ñun suñu doomu africain yi. dañoo seen dëkk dafa riche. ñuy jógee seen dëkk. Mhm. di dem ci fekk ñoo xam ne ñun ñoo leen di tànkal. Mhm. ci ñun la ñuy tànkee. Mhm. suñu doom yi dem ci ñoom ñii di dee ci ndox mi. ñii di dee ci suuf si. lan moo ko jar yow milliards yi ngay denc. milliards yi ngay denc. da nga ko mën a lekk ba mu jeex. sa mbokk dañ ko mën a lekk ba mu jeex. li ko fekkee moom presque genn wàll nit la. est-ce que mën na ko lekk. mënu ci lekk sax ñeenti millions. wallaay kon nañu rafetal toogaay bi. ñu defaraat toogaay yi. ci màggal gi ñu daanelee juste ministre de l' intérieur dem na fa général Moussa Fall dem na fa kii di Macky Sall dem na fa euh, mais général bi dégg nañ ko mu wax ne ñoom jël nañ seen i kaaraange yëpp ba képp ku bëgg a yàq màggal gi ñu ñu mën a dal sa kaw mais li ma doon laaj rek mooy Sénégal toll nañ foo xamante ne nit peut-être dina am xoolu dem di yàq màggal wala di yàq gàmm wala yooyu noonu est-ce que sénégalais toll na foofu. kaa xamal leen sénégalais. Mhm. sénégalais li ci ëpp ragal dañoo ragal dee. Mhm. ñeme nañu yàlla ragal nañu dee ñu ci ëpp. Mhm. kuy def loolu yàlla sàkk ko ko de. di dem ci jumaa ji di def loo xam ne wala nga dem ci bérébu Sëñ Tuubaa di fa def loo xam ne ëllëgee si bi da nga koy laloo sa nijoor. gisuma doomu aadama bu koy def. moo ko wax nag xëy na lu mhm. tax mu wax ko moom moo ko xam am na fu mu ko teg mhm. mhm. waa ne man de sama yaakaar ci àdduna gowma loolu ci àdduna waaw bara bu sëñ fa def lu bon kenn du fa def lu ñaaw sëriñ Touba sax moom euh, defe naa ne yàlla nañu yàlla taas ci barkeem te guddal fanu sëriñ Muntaxa mii di mii di sëriñ Touba ndax màggal gi moom ni nga ko waxee rek li fa neex bëri na waaye it lañ fa war a xoolaat rek bëri na waaye li ñuy wax li ñuy wax sax ñii gàmmu ak ñi ñi raas déem mhm. bokkuñu mhm. ñi ci gën a bëri ci ñi koy yàq sax santuñu ñu mbàkke amuñu mbokk bu sant mbàkke amuñu amuñu amuñu maam bu sant mbàkke amuñu dara ma riirandoo rek leen ci dugal te moo tax ñu koy tas waaye yàlla ñu yàlla musal ci yàqkat rek euh, je vous rappelle que vous êtes sur 313 euh, digital